salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi revue de presse bi oustaz Mohamed Konté moo leen koy may oustaz Mohamed Konté mii nag ku yàlla baaxal la day yëngu ci mbiru ñaan yàlla moo xam nga am tawat ci saw yaram boo jokkoo ak moom rek incha allah yàlla mën na laa defal saafara ca loole wala li nga xamante ni moo di ndoxum siti ba ci hémorroïde mi nga xam ne sonnal na ñëpp yàlla may na ko ci ak sunu mbokku jigéen yi nga xam ne dañoo nekk ci néegu sëy nekk ci jafe boo ko woowee rek incha allah yàlla mën na leen a dëppale ba ngeen am la ngeen bëgg ci moom wala lii di néew kattan ci néegub sëy yàlla may na ko ci xam-xam kon nag li ngeen di def moo di jël numéro yii ma leen di waaj a jox muy cent 77 330 17 58 wala nga jël 70 796 24 89 soo bëggee dem ca moom nag ni ngay def yomb na da ngay dem ca géejawaay laajte rond point dalal jàmm boo fa demee rek incha allahu rabbi di nga gisante ak oustaz Mohamed Konté dimanche 19 juin 2022 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi tey nag dimanche la benn journal Sénégal ñëwul waaye laata ñuy dem nag dañ leen di fàttali làmb ji nga xam ne moom la sénégalais yépp di xaar tey jii war dox ci diggante Sokh ak Franc lamb joojee ma ngay amee ca arène nationale kon gaañi waajal leen ko ko ngeen dem seetaani ko ndax làmbkat ñoo ko moom waaye nag nañu ànd ak yar ak teggin fair play ñu ànd ci jàmm jeexal combat boobe ñibbiwaat sunu kër yi ci jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën ñu door revue de presse bi dooree ko Portugal fekk fa Abola Enzo Fernandes la fësal ca xët wu njëkk wa gone gii nag Real de Madrid ak Manchester City yëpp bëggoon nañu ko waaye jamono ji jege na lool ngir dem ca Benfica waa Benfica la ñu xamal River Plate moo di gone gi bëgg naa ko te clause bi ko fi bàyyi noppi naa ngir fay ko clause boobee nag mi ngi toll ci vingt millions d'euros waa Benfica li ñu bëgg moo di semaine bii di ñëw ñu officialiser ko gone gi jógee ca River Plate dem ca Benfica di doxal ci fàttali xale bu ndaw la vingt et képp la am la muy def mën na ko milieu de terrain bu football am ci moom yaakaar la ñu jógee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Vinicius la fësal ca xët wu njëkk waa Paris woo nañu ko ay yooni yoon ne ko sa contrat de su jeexee soo ñëwee fii dinañ la xaatimal contrat te la ñu noppi ngir fay la ko 40 millions d'euros ca jamono joojee nag waa Real de Madrid ñoo ngi doon waxtaan ak Vinicius ne ko kat dinañ la yokkal sa contrat fay la 10 millions d'euros te 10 millions ak 40 nag wuute na lool waaye doomu Brésil bi xoolul xaalis la mu bëgg moo di des ca Real de Madrid wéyal moom mii di Vinicius ak Real de Madrid léegi ñu juboo ngir mu xaatim contrat ba atum 2027 samay mbokku internet nag maa ngi leen di laaj ci commentaire yi lan ngeen di digal Vinicius mu xaa contrat toog ca Real dem ca lay jël aas waa Real de Madrid la fësal ca xët wu njëkk wa ñoom nag ñooy buuru mercato li ko waral moo di kan ñoom dañoo xam mercato te xam lu ñu cay duggee Real de Madrid fukki at yi weesu li mu jaay ci ay gone teg na ca xaalis naam jëndaat ñeneen la mu ca teg ci xaalis nag bu ñu ko calculer mi ngi toll ci cent quarante millions d'euros waaye kat na ko njëriñ ndax ci fukki at yooyee gañe na ci juróomi Ligue des Champions kon Real de Madrid xam na lool mercato waaye nag yeneen club yi nga xam ne ñoo ngi fi ñoom ñoo ëpp lu ñu def dépassé Real de Madrid naam Real génne na xaalis waaye club yii may waaj a lim li ñu génne moo ëpp li Real de Madrid génne te ñoom kat Real moo leen ëpp Ligue des champions ci fukki at yi ku ci mel ni Chelsea Juve Paris ba ci Manchester City club yooyee li ñu génn cib xaalis def ko ci mercato Real de Madrid defu ca genn wàll ga te Real am na club bu baax te ay joueurs yu baax la am te mi ngi jël Ligue des champions kon daal Real de Madrid mooy buuru mercato. doomu Belgique bii di Vitzelit mi ngi ci journal bi moom nag ñëpp ngi ko doon séntu ca Marseille waaye loolee kat mën naa bañ a yemb li ko waral moo di kat suba ci altine ji ñoo ngi koy xaar ca Atlético de Madrid la muy wut si nag moo di waxtaan ak waa de Madrid su lépp yembee mu def visite médicale coupé contrat ci fàttali gone gi contrat am dafa jeex tàkk ca Dortmund agent libre la jamono ji ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Rafinha la fësal ca wu njëkk wa Rafinha ok waa Barcelone nag noppi nañu ngir jënd ko gone gi nag doomu Brésil la ma ngay football ca Leeds United président wu Barcelone ci boppam moo yëkkati téléphone am woo ko ne ko yow kat dinañu la jënd ndax Xavi moo la bëgg waaye nag am nañu yàq sunub der naan Barcelone amul xaalis waaye ñun am nañu xaalis bu ñu def ci yow Qatar ndax club yu mag ca Angleterre googee ñëw nañu ngir bëgg laa jënd nga gantal ne leen Barcelone lay xaar kóolute googee ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm Ousmane Dembélé tamit mi ngi ci journal bi moom nag démb benn fan fansam ca Barcelone moo ko kar ne ko Ousmane ndax da ngay toog ci Barcelone wala da nga fiy jógee mu ne ko jamono jii daal maa ngi Barcelone kon leeralul ca mbir moomee dara ñu jugee sport jël Mundo Deportivo Rafinha la fësal ca xët wu njëkk wa yëf yaa ngay tàng jër nag jamono ji waa Barcelone la ñu bëgg moo di agent Barcelone ak seen président ba la ñu bëgg moo di toog ak moom waxtaanee mbiru gone gi ngir ñu sottal mbir ma lépp gone gi dem foofee ca Barcelone doxal ci fàttali gone gi excentré gauche bu mën la muy def la càmmoñ bu neex la gone gi am te kat Leeds United su desee ca Premier League ba nañ ko ko sante ndax liggéeyam a nga ca gone gi nag la waa Barcelone bëgg moo di su Ousmane Dembélé demee mu wuutu ko foofee di doxal ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Abraham di football nekk yépp dañu ko wuutali ngir jënd ko waaye AS Rome kan la mu xamal club yooye moo di gone gi jaayul gone gi sax amul njëg jaayuma ko ku koy jënd na nga toog ndax luy jaay la ñuy jënd te gone gi jaayuma ko Inter nag ña ngay baral jéego yi la ñu bëgg moo di Lukaku ñëw ànd ak di balaa fekk fa Lautaro Martinez ñu ànd di doxal loolee waa Inter jàpp nañu ne bu ñu ko amee seen équipe boobee kenn du ko téye tax na nag ña ngay liggéey ca loolu ñu jugee Corriere dello Sport dem fësal ca xët wu njëkk wa bég lool la def nag li ko waral moo di kat dirigeant wu yuufe ya ñoo ko fekk ca dëkkam di livre na loolee nag moom mii di Maximiliano Allegri kontaan na ca lool la yu yuufe xamal moo di ñoo ngi ci mercato bi de te am na gone yuy ñëw am na ñu des ku ci mel ni Paul ba daanaka ñëw na ak Angel Di Maria te suñu noppee ci seeni mbir dinañu songu yeneen i gone li ñu bëgg moo di li nga bëgg tabaxal la équipe bu mag fii ci yuufe nga doxal te loole ñoo nga ca loolee nag moo bégal lool Maximiliano Massimiliano Allegri waaye seen wujj yi di waa Torino ñoom jamono ji amuñu xaalis la ñuy waajal moo di jaay kii di Bremer li ñu bëgg ci moom moo di quarante millions d'euros suñu ko ca amee ba noppi nag dem jël xaalis boobee jëndee ko yeneen gone ñu ñëw jàppale club boobee di Torino ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Inter nag la ñu bëgg moo di judduwaat la ñu bëgg nag moo di saison bii di ñëw ñu boole ñetti joueurs yu mag kenn ka nag moom ma nga fa muy Lautaro Martinez la ñu bëgg moo di ko ca boobee noppikat mbiru kii di di Dybala daanaka yemb na ngir mu dem foofee fekk si ko ak Lukaku mi nga xam ne miin na club boobee moom jamono ji ma nga ca Chelsea waaye ña ngay baral jéego yi ngir waa Chelsea abal leen ko la ñu bëgg moo di ñoom ñett ñii ñu boole leen ca club boobee ñuy doxal li ñu bëgg mooy saison bii di ñëw scudetto boobee kenn du leen ko xañ ñoom jël nañu ko dix-neuf fois li ñu bëgg moo di saison bii di ñëw ñu matal vingt ya te loolee ña nga cay liggéey waa Inter Napoli nag jamono ji dañoo tiit ci mbiru Kalidou Koulibaly fowatuñu ci mbiru Kalidou Koulibaly li ñu bëgg moo di jënd ko yóbbu ko ci seen club boobee muy doxal seenub défense kat ba fa këli ni jógee ak léegi ka ñu fa wóolu moo di Kalidou Koulibaly te jamono ji ña ngay baral jéego yi ngir jënd ko Angel Di Maria it ay yëfam ma ngay yëngu waaye yuufe ñoo ngay baral jéego yi ngir kat juboo mën a am ci bis yii di ñëw li ñu bëgg moo di kat tabax seen club boobee te jamono ji ñoo nga ca Angel Di Maria nag agent libre la waa yuufe la ñuy def moo di waxtaan ak moom fay ko salaire képp mu ñëw ca club boobee doxal ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah. dafa amoon bopp bi métti bu ko sonaloon lool mu dem ci médecin yu bari mënuñ ko faj bi mu yónnee Seydina Omar ne ko dafa bëgg mu faj ko Seydina Omar bind jël benn feuille bu ndaw bind ci bisimilah rahmaani rahiim na leen bu ngeen demee ngeen jox ko na ko bala moo sol mbaxana na ko jiital na ko jiital soo ko sol mbaxana léegi buur bi moom mooy nettali nee na heure bu ko solee rek bi bopp bi méttam bi day wàññeeku mais mbaxana mi heure bu dañee rek bopp bi méttam bi day ñëwaat léegi bu ñu xoolee gis ne bisimilah rahmaani rahiim moom moo ne ci biir yooyu yëpp day firndeel te ñaareel bi mooy yonent bi euh, Seydina Ali ibn Abi Talib doomam Xasan dafa feebar feebar bu métti yonent bi jaaxle ci feebar bi yàlla wax Jibril na ko demal nga wax yonent bi na ko sëtam bii feebar na jàng saar bi nga xam ne amul faa. ban la boobu ba mu ko waxee loolu yonent bi xamu ko mu xool di xool di xool ne saar bu amul la ci la xoolee ne ah kon faatixatul kitaab la. faatixatul kitaab moom moo amul faa mooy saar bi nga xam ne amul faa maanaam boo koy jàng ba mu jeex du am benn lettre bu fa nekk faa. léegi bi mu ko jàngee borom xam-xam ne ñii ne ñeent fukki yoon la ko jàng ñii benn